baada ma amatana wa ilayhi nushur Rewmi FM nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di ci ànd seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy Jaawo Jallo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli ci sang bu tedd bi te mooy ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam xanaa di leen fàttali ne rek ñoo ngi nekk bisniki ni ki tey di gaaw tombeek juróom ñaari fan ci weeru al muharram moo tombe gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa atum junne ñeen téeméer ñeen fukk ak juróom benn mooy ci gàddaay yonent bi jóge ko Makka dem Madinatul Munawwara ak suñu jonn yàlla ji di tey mooy mille quatre cent quarante sixième année bala ñu toll ni mu nekk bésu gaaw gi di tey ñu di leen fàttali ne rek des na suñu diggante ashura di fukkeelu fan ci weeru tamxarit ñetti fan ci ñenn ñi ñeenti fan moo leen dese waaye lum ci munti doon ñu ñaan yàlla fukkeelu fan di yowmul ashura ci weeru tamxarit bés bu tedd boobu buy ñëw yal nañu fi fekk waaye buy dem yal nañu fi bàyyi te lépp lañ fa jaamu yàlla yal nañu ko buur yàlla boole defal yiw amin ya rabbal alamin at bu bees baa ngi ni tàbbi na tey di bésu gaaw gi di tey mooy juróom ñaareelu fan mooy weeru tam xarit tey mooy juróom ñaareelu fan bi di bésu samedi bi di tey moo tombe gàdday yonent bi mille quatre cent quarante six ans xanaa di fàttali mbokk yi rek des na suñu digganteeg fukkeelu fan ci weeru tamxarit te mooy bésu ashura ñetti fan ñu di leen ñaanal yàlla atum jàmm ñu di leen ñaanal yàlla atum naataange ñu ñaan yàlla suñu boroom at bi yal na ko yàlla def at bu fees dell ak ay xéwal waaye fukkeelu fan bi la ci yonent bi digle di woor bés ba la tax jullit bi di ci woor mooy xemmemteef ba muy am fa boromam ngir yàlla jéggal ko bàkkaaram ya mu jiital yal nañu ko yàlla boole defal yal na bu ñu ko yàlla xañ amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot ñaan bu ñëw ci almunaax ba ñuy wéttalante ki yéen ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci réew mi FM 97.5 bésu gaaw bi di tey ñaan bi mooy yow jullit bi del ñaan yàlla la nga xamante ni yàlla dong moo ko man te ci moom la nekk kon dee ko sàkkoo fa moom ba tax na dee ko ñaan ne ko allahumma musarrif al qulubi sarrif qulubana mooy ñaan bi li tekki mooy del sa borom di ko ne allahumma buur yàlla mu alquluub yow mi tas xol tas xoli di ko tas ca nam la neexee ca noo ko soobee maa ngi lay ñaan sarrif xuluubanaa yàlla nga orienté suñu xol ci jamono ya ngay tasaare xol di leen jëmale fa la soob kon ñu lay ñaan yow miy tas xol yi di ko jëmale fala soob sarrif quluubana yàlla nga orienté suñu xol yi alaata atika jëmale ko ci topp la ndax foofu dong nekk muccukaay ba nga xamante ne képp ku yàlla orienté xolam jamono jamuy tasaare xol yi yàlla jël sa xol orienté ko ci topp ko kon topp yàlla jooju ñu di ko ñaan yàlla yan nañu ko yàlla defal jamono bu muy tas xol di ko jëmale fa neex jamono jooju yàlla sa jaam yaa ngi nii tàllal seen yoxo ñu di la ñaan ngir nga orienté seen xol jëmale ko ci topp yàlla ba tax na ñu nit ñu ngi naan allahuma musarrifa al qulub buur yàlla yow mi wommat xol yi di ko tasaare di ko jëmale fala neex ñoo ngi nii tàllal suñu yoxo di la ñaan sarrif quluubana yàlla nga wommat suñu xol tas ko jëmale ko ala taatika ci topp yàlla bi nga xamante ne képp ku xolam tënku ci topp yàlla kooku mooy ki mucc yàlla ñu yàlla defal li ni mel amin ya rabbal alamin mbokk yi yenn jàmm yàlla nekk ci yenn ak seen njaboot ndax ñaan ba ñuy ñaan nii du kenn moo ñu ko mën a defal kudul buur yàlla tabaraka wa taala ndegem ci moom la nekk ndegem moo koy defee nii kon nañ leen bokk talal suñu yoxo ñaan ko mu defal ñu lañ ko ñaan ni yal nasuñu ñaan bi dëppale ak waxtu yi nangu ñaan ya nekk ci weer bi rawatina njëlbeenu fukki fan yu njëkk yi amin ya rabbal alamin mbokk yi xadis ba ñëw ci calendrier ba ñuy waxtaan ak yéen mu nekk almunaax ba ñuy fàttalantik yéen xadis bi jëlee nañ ko ci saxaabi bi di abi hurayrata radiallahu anhu nee na ann nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal araaytum law anna nahara bi baabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin xamsa marratin hal yabqa min daranihi shay'an qaalu laa yabqa min darnihi shey'un qaal fa dalika mathalu salawaati alxams yamxu llahu bihinna alxataaya rawahu buxaari wa muslim mbokk yi yan na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot saxaabi bi di abi hurayrata radiallahu anhu moo ñu baaxee xadis ba ñu doon jàng nii léegi nee na nag suñu yenent bi di ar rasulul rabbi wa salaamuhu alayhi nee na araaytum moo gis ngeen ba law anna nahara bi baabi ahadikum kenn ci yéen bu dee dafa yore dex wala pisin ci buntu këram yaqtasilu minhu kulla yawmin xamsa marratin muy sangu ci dex woowu walla ci pisin boobu juróomi yoon ci bés bi yonent bi laajte hal yabqa min daranihi shay'an ba xam kooku yaramam dina taq ci tilim tilim walla ci salte saxaaba yi tontu ko qaalu ñu ne ko laa yabga min daranihi shay'an kooku yaram kooku de yaramam dara du ci des ci taq-taq wala ci tilim-tilim kooku yaramam day set wecc kooku yaramam day set wecc ci ay tilim wala yaramam day set wecc ci ay salte xaal yonent bi ne leen ndegem kooku yaramam day set wecc du taq dara la koy saltel ndax la tax day sangu ci dex boobu mu yore ci bunti këram walla piscine boobu mu yore ci buntu këram juróomi yoon ci bés bi ba tax na xam ngeen ne kii sangu ci piscine juróomi ci bés bi walla kii sangu ci dex juróomi yoon ci bés bi kooku yaramam du des dara la koy taxal yonent bi ne leen noonu la moo tax mu ne leen fa dalika mislu salawaatil xams noonu la juróomi waxtuy julli mel yamxu llahu bihinna alxataaya yàlla buur bi tabaraka wa taala day raxas bàkkaar yay taxal jaam bi ci bis bi ndegem mu ngi fonk juróomi waxtu yi mu ànd ak njàpp kooku muy sangu kooku di sangu ci piscine bi juróomi yoon ci bés bi na dakkooree na ngeen nangoo ne yaramam du tax dara ci ay tilim-tilim noonu la ki sàlloo ki respecté kiy wattu waxtu julli juróom noonu la yaramam di setee ci ay bàkkaar hadis bi Buxaari ak Muslim ñoo bokk solo ko mbokk loolu nuñ ko mën déggee xanaa du yonent bi sallallahu alayhi wa moom la yàlla wàccee xam-xam bi ni mel moom la yàlla garanti ni kii du wax ci coobare ba kenam kon bu la waxee ne kenn ci yéen bu yore piscine ci buntu këram mu di fasangu juróomi yoon ci bés bi ndegeem yenn saxaaba yi garanti yéen xam déggal ne kooku yaramam du am dara lu koy taqal kon na ngeen déggal ne képp ku sàmm wante juróomi waxtu julli yi ci bés bi noonu la sa borom di la setale ci ay bàkkaar yara na la taxal kon julli bi day doon pisin ba ngay sangu say bàkkaar di dañ say yaram comme ndoxu pisin bi nu muy raxasee salte yamu fekk sa yaram mu di ko raxas ba tax na yàlla suñu borom tabaraka wa mi ñu baaxee mu yenkeewal ñu waxtu yu julli fajar ñu tàmbali suñu bés bi ak xéewal bu njëkk boobu buur yàlla xéewalal ñu ci péncum askanu jullit kon yonent bi nee képp joxe waxtu woowu laata ngay joxe waxtuy fajar boobu boo yeewoo ci nelaw dafa am la nga war a ñaan sante ko yàlla te moo ne da war a tudd baat bi te mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yu kawe yi ñeel nañu yàlla mboolem xeetu cant yu matale yi ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne moo ma faat gannaaw si mu delloo ma sama ruux te bu ma jógee ko ci dundu àddina si ci moom dong lay dellu subhaanahu wa taala ba tax na premier audience ba jullit bi di am ak boromam mu doon julli fajar wala julli suba ña ko teewee gannaaw bu ñu déggee noddkat bi mu naan leen hayya ala salaa kaay ci julli julli ba leen di jokkale ak seen boroom hayya ala falaa ci texe texe bi nga xamante ne yàlla defu ko fenn dekku fo dekku defu ko ci lenn lu dul ci julli yàlla deful texe ci lenn deful texe ci dara lu dul ci julli kon ndegem texe doomu aadama yàlla def si julli kon bu la noddukat bi woowee ci la lay texeloo fii ci àddina ak ëllëg bis pénc da nga war a dem wuyu foofu ngay sàkkoo texe boobu te muy julli rawatina mu teg si ne la asalaatu xayrun min a nawm ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam audience boobu doomu aadama bi di am ak boromam dafa am lum ñu fa baaxee ci xadisul qudsi qaala taala buur yàlla nee na yonent bi salaa neena nee na yàlla daf maa xamal ne ma qasamtu salaata bayni wa bayna abdi nisfayn man yàlla de xaaj naa julli digganteem ak jaamam nee na yàlla nee na qasamtu salaata bayni wa bayna abdi nisfayn xaaj naa julli sama diggante man yàlla ak sama jaam muy ñaari xaaj kon nañ leen bokk déglu xaaj yooyu nu ñu nekkee ak nu mu demee ndax audience bu mel ni nga di rencontre sa borom sa borom xamal yonent ba mu la yebal ne ko xaaj naa julli rencontration boobu audience ba sama jaam bi di am digganteem ak man xaaj naa audience boobu muy ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi moo ko moom wala xaaj bu njëkk bi maako moom ñaareelu xaaj bi moo ko moom ba tax na yonent bi nee na yàlla suñu borom tabaraka wa taala nee na qasamtu salaata bayni wa bayna abdi nisfayn xaaj naa julli ba sama jàmbi di def sama diggantek moom ñaari xaaj yonent bi nee na yàlla wali abdi ma saala waaw sama bi de lépp la ma ñaan ci audience boobu dina ko ko ba tax na yonent bi salaa sallam nee na ba jaam bi waxee fa ida qaala al abd jaam bi jullit bi bu waxee alhamdulillahi rabbil alamin mooy bu ne mboolem xeetu cant yi ñeel nañu yàlla ndax mooy borom mbindaafoo ni qaala allahu taala hamadani abdi yàlla daka naan sama jaam sant na ma cant bu am dayoo fa man yàlla yonent bi nee na wa ida qaala arrahmaanu bu jaam bi waxee arrahmaanu mooy yàlla moo fi nekk di borom yërmande àddina ak borom yërmande alaxira qaala allahu taala yàlla da ko naan asnaani alayya abdi sama jaam de màggal na ma delloo na ma njukkal delloo na ma sama kawtif ak sama man-man fii ci àddina ak keroog bés pénc yonent bi sallallahu alayhi wa nee na wa ida qaala maliki yawmi diin bu jaam bi waxee maliki yawmi diin bu waxee buur yàlla yaay buuru bésu peyoor ba yaay fay nit ñi yaay fay say jaam yi keroog bés pénc di bésu peyoor ba buur bu mangoo buur bay taxawee peyooru mbindaaf woni ci seeni jëf du kenn ku dut yow xaal yonent bi nee danaan ma majjadani abdi sama jaam bi de nangu na sama nekk ba ma fi nekk duma fi mus a jóge waaw dëggal na sama nekkin bi fii di nekkin bu sax dàkk du ma fi musa a sama jaam dëggal na ko de waaw yonentu bi nee na fa ida qaala iyaaka na'budu wa iyyaka nasta'in yonent bi nee na bu jaam waxee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mooy bu waxee ne du fi nekk di jaamu dara duma fi nekk di sàkku ndimbal ci kenn ku dul ci yow yàlla yow rekk yaa di yàlla bi may jaamu yow rekk yaa di bi may sàkku ngir nga xettali ma ci mboolem xettalikukaay ba may sàkku duma ma sàkku xettaliku ci keneen walla ci feneen walla ci neneen kudu ci yow yàlla ci yow yàlla dong lay sàkku xettalikukaay ba ma soxla waaye nag nga ne ko iyaaka naabudu yow yàlla dong lay jaamu du ma jaamu kenn du jaamu lenn kudut yow yàlla waaw bu waxee lii yonent bi nee na xaala yàlla danaan haada bayni wa bayna abdi lii mooy la nekk sama diggantek sama jaam bi waaye yàlla ne ko wali abdi ma saala waaw ah, ubbil naa buntu xéwal buntu nangu ñaan buntu ijaaba sama jaam bi na ñaan lu ko soob waaw ñaan boobu ndegem yow xamoo lan moo gën ci yow yàlla daldi la baaxe ndegem moom yàlla moo xam li baax ci yow mu ne la kon nanga ñaan baat bi nga xamante ne moom la aaya bi di andi moo tax yonent bi ne fa ida qaal bu jaam bi ne ihdina siraata al mustaqim yàlla ma lay ñaan yàlla nga ma jubal ci yoon bu jubba siraata alladina an amta alayhim yoonu gaay yanga nga xéewalal xéewalu wéetal yàlla xéewal topp yàlla yoonu gaa ñooñu laa wax de mu nga xamante ni mooy yoonu yonent yi yoonu suhadaa yi yoonu siddiquuna mooy yoonu saalixuuna yi mooy yoonu nit ñu dëggu ñekk nit ñu baax ñekk yoonu yonent yi mooy yoonu ñu affronté ak noonu jullit ñi ba ñu daanu ci toolu xare ba ñooñu seen bakken des ngir jëmmal yoon woobu yoon boobu laalane nga orienté ma ci mooy siraat alladina an'amta alayhim yoonu gaañu baax ñooñu lay sakku yow yàlla yàlla nga ma orienté si yoonu ñooñe nga ne ko nag xayril maqdubi waxuma yoonu gaay ñi nga mere de ndax xeet fi nekkoon dañoo xam la yàlla santaane ñu lànkabe tëdd si naaj wa ñu bañ kaa def yàlla mere kon waxuma yoonu gaa ñooñu alayhim wala daalin ak yoonu gaañ ñi nga xamante ne dañ lay jaamu ci ngilimaande dañ lay jaamu ci ngilimte dañ lay jaamu ci riir waaw waxuma yoonu gaañoo ñu tamit de kon yow jullit bi bu duwutoon la yàlla la la yàlla baaxee mu orienté la ne la ko ñaan ñaan bi ndegem dalaa ubbil buntu nangu ñaan bu la yàlla xamalu toon ne na nga ñaan ihdina siraata al mustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala daalliin bu la yàlla xamalu toon baat bi mu bàyyi la ak sa xel rekk doo mun a trouver baat bi ni mel moo tax yàlla ne la nang ma ñaan ma orienté la teg la yoon bu jub ba nga xamante ni ku si xasa tegu jeex na mucc nga raw nga texe nga moo tax yonent bi ne fa ida qaal bu jaam bi waxee ne ihdina siraata almustaqim yàlla ma lay ñaan yàlla nga ma orienté nga jubal ma teg ma ci yoon ba jubba siraata alladina an'amta alayhim yoonu gaañu baax ña nga xéewalale xéewalu diine islaam yoonu gaañu baax ña nga xéewalale xéewalu wéytal yàlla yoonu gaañu baax ña nga xamante ne yaa leen tànnal seen bopp yaa leen tànnal sa bopp ngir ñu doon gaañu baax ña nga orienté ci yoon bu jub ba leen xàllil yàlla ma lay ñaan nga teg ma su yoonu gaañu baax ñooñee moo tax nga ne ko ihdina siraat al mustaqim yàlla nga ma jubal ci yoon bu jubba siraat alladina mooy yoonu gaay ñi nga xamante ne an amta alayhim xéewalal nga leen xéewalu topp yàlla xéewalu jaamu yàlla xéewalu wéetal yàlla bañ kaa bokkaaleeg dara mooy gaay ñi nga xamante ne min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihun wa xasuna ulaika rafiqa gaay ñi baax ñi nga xamante ne jikko yi ñu wax ni loolu lañu ñu làmboo mooy yoonu yonante mooy yoonu nit ñu dëggu ñi mooy yoonu nit ñu baax ñi waaye mooy yoonu nit ñaa doon jëmmal dëgëral islaam ba seen bakken rot ci ñooñu seen bakken rot ngir jëmmali islaam yoon ba tax seen bakken des si ngir jëmmal yoon woowu laala ne nga gindi ma teg ma ci yoon woowee waaye nag gayril maxduubi alayhim waxuma yoonu gaay ña nga mere de ña nga jox téere ñu xam la nga bëgg ñu lànk ba tëdd si naaj bi ñu ne duñ ko def ñu xam lépp li nga tere ñu nekk ci loole ba sa mere dab leen ci loolu waxuma yoonu ñooñu de wala daalin waxuma yoonu ñi nga réeral ba ñi di la jaamu ci sànkute ñi di la jaamu ci cànkute joo xamante ne jaamu bañ lay jaamu yow yàlla teguñu ko ci benn xam-xam am ñu fi joxoñ ñu ne aaya bi yàlla al yahud lañ fi tudd ndax ñoom la yàlla jox téere ñu xam li ci téere bi ñu xam la ci yàlla wax waaye ñu lànk bi tëdd si naaj bi bañ kaa jëfe yàlla mere leen kon yow jullit bi waxuloo yoonu gaañ yàlla mere ñu ne wala daalin mooy ña yàlla réer mooy am nasaara ñoo xamante ne dañuy jaamu yàlla ci xelaat ak ci foog na defe na jaamuwuñu yàlla ci tex waaw yonenti yàlla Isaa ma yàlla yónni si ñoom gannaaw si dañoo jël yoonu yàlla yonenti yàlla Isaa soppi ko def ko leneen lu wuuteeg lem leen fi bàyyee waaye ñuy jaamu yàlla ci seen bànneexu bakkan kon yow jullit bi booy ñaan yàlla mu tegle si yoon bu jub bi ne ko yoonu gaay ya nga yenkeewal xéewal bu toll ni yoon bu jub bang leen xaalil waaye waxuma yoonu gaay ña nga mere walla yoonu gaay ña nga réeral yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bu jàmbi waxee lii buur yàlla da ko naan haada al abdi wali abdi ma saala lii la sama jàmbi moom ñaan bi kon dinaa ko defal lamma ñaan kon ñaan bi amul kenn ku ñu ko créer amul kenn ku ñu ko xamal amul kenn ku ñu ko fental amul kenn ku ñu ko jox yàlla moo ñu gën a xam ñaan ba gën ci ñun mu ne ñu na ngeen ma ñaan ne ihdina siraat al mustaqim siraat alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala daalin yonent bi ne jàmbi bu waxee lii yàlla da ko naan lii mooy lama warloo ak sama jàmbi kon jàmbi moo moom ñaan bi te ñaan na ko wali abdi ma saala kon dinaa jox sama jaam bi lamma ñaan bi muslim moo ko solo mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg ci fu ñu war a yëkkatee jotaay bi war a jébbal bërëb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan ñuy ñaan yàlla suñu boroom audience ba nga xamante ne jullit bi mu ngi koy am ak boromam ndegem lii mooy titre audience ba jullit bi di sëq ak boromam kon nañ leen xam audience boobu ban dayo la am ndax bépp baat bi nga yëkkati yàlla dala ciy tontu waaye yow doo ko dégg boo yeggee ci ihdina siraat al mustaqim yàlla ne ubbil naa la buntu ñaan ñaanal lala soob comme yow munoo xam la gën ci yow te xamuloo bu gënee ci yow ba xam dinga nga dund ak moom yàlla mi ko xam moo tax mu ne la ñaan ma ihdina siraat al mustaqim siraat alladina an amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala daalin yàlla ñu yàlla boolee defal la ñaan bi di tekki yàlla ñu yàlla boole nangul suñu jaamu yàlla yañ koy jaamu at bu bees baa ngi ni dugg nañ si yan na ko yàlla def atum naataange lépp luñ si ñaan yàlla yàlla ko yàlla nangu nasaluka ya allah an taxfada bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina wa aslih allahumma aimmatana wa wulata umurina allahuma ya rabbi nasaluka an taxfir lana ma qaddamna wa ma axarna wa ma asrarna wa ma alanna amin ya rabbal alamin baarakallahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa dikri alhakim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu